sëriñ mbay mbuuma njaay sëriñ mbay mbuuma njaay mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1871 ci dëkk bu ñuy wax nag mbos la geen mbos la gen nag mi ngi ci wetu ndóofaan ci suuf si nag di saalum muy doomu soxna jabu géey ak sëriñ coon mati si moom sëriñ mbay mbuuma njaay am na nag ku mu bokkal soxna jabu géey ak sëriñ coon mati si mii ñu mën cee ràññee nag sëriñ daam jabu njaay ibnu soxna jabu géey ibnu sëriñ coon mati si ak moom sëriñ mbay mbuuma njaay mii ibnu soxna jabu géey ibnu sëriñ coon mati si kenn nag la bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen muy sëriñ daam jëbu mii laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ mbay mbuuma njaay mii ñu wax leen nag waajuru góoram wii ko meññi nag moom mooy kan muy sëriñ coon mati si mii doomu soxna mati demba si la soxna mati demba si mook sëriñ ousmane si mi meññi maam cheikh el hadji malick si ñoo bokk nag benn waajur nag wu góor sëriñ daam jëbu mii mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen bana fi nag ak njabootam kenn itim nag ci ay njabootam ñu mën cee ràññe nag sëriñ musaa mbàkke nag bu poroxaan di doomu sëriñ maam mor bil waajuram nag di soxna kumba tiga njaay di doomu sëriñ daam jëbu njaay mii rakkam ji mu bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen di sëriñ mbay mbuuma njaay bi mu matee dal alxuraanul karim booba nag dafa fekkoon nag waajuróom jóge nag ci dëkk bii mu nekkoon nag di mbos lagan demoon nag ci dëkk bu ñuy wax kër góor ba tey nag suriwul nag dëkk bii nag di ndóofaan daaray alxuraan jafa newoon nag fa la sëriñ mbay mbuuma mii nag dalee alxuraanul karim ginnaaw bi nag la jógee ci dëkk boobu nag di kër góor nekk nag ci wetu dëkk bi nag di ndóofaan la fa bàyyi ko nag dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag ñindóor ci dëkk boobu nag di ñindóor waajuróom nag dafaa nekkoon nag moom ñindóor googu suriwul dara nag dëkk bi nag di kuccee wéel na fa nag am njàngam nag ci sëriñ daara nag ba fa nekkoon ginnaaw dëkk boobu nag di njindoor daa ànd ak waajuróom itam nag bàyyi waat fa demaat nag ci dëkk bu ñuy wax njaayeen sanc ci wetu dëkk bi nag di kër ma jabeel ci ñetti dëkk yi nag la jaar nag ci njàngum alxuraan nag ak xam-xam dëkk yooyu yëpp nag mu jaar nag waajuróom nag moo fa nekkoon waajuróom itam nag sëriñ daara la woon wala daal ku bëggoon nag lu baax la ku daa sellal itam nag la woon ci dëkk yooyu nag waajuróom jaar nag dëkk yooyu itam nag daaree alxuraanul karim nag dafaa newoon njaayeen sanc la dem nag ci saalum ba tey ci dëkk bii nag di mbuuma dëkk boobu nag ba mu fay dem itim nag sëriñ mbay mbuuma mii nag ànd naa moom mi nag ci loxoy waajuróom di dimbali waajuróom nag lépp loo xam nag waajuróom nag ma koy def nag ci jamono jooja ba ci atum 1907 ci nag la dem gànnaar laata sëriñ tubaa seexul xadim nag di fa bàyyi ko bi muy dem gànnaar nag waajuróom sëriñ coon mati simi la tàggu di ko xamal ne daal sëriñ boobu muy dégg a seeti waajuram nag sëriñ coon mati si bàyyi woon na ko mu dem gànnaar nag bi muy dem gànnaar nag wax nañ ne àndut ak kenn menn moom dong nag la ginnaaw ba mu demee gànnaar nag ci atum 1907 booba nag fekk na sëriñ tubaa seexul xadim nag jógeegul gànnaar ci dëkk bii nag di xumaag nag la fekk nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadima ginnaaw bu mu eggee gànnaar ba gisee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim seexul xadim nag laaj na ko nag fu mu jógee mu di ko xamal ne nag saalum nag laa jógee dëkk bu ñuy wax nag muuma ay yitteem nag mooy déggoon ko nag bëggoon moom seexul xaddim nag nangul na ko nag ak njébbalam ci réew moomu nag di gànnaar ci dëkk boobu itam nag di xumaaka ay fan yu néew nag la ko fa seexul xaddim téye yabalaat ko nag mu delsiwaat nag ci biir réew mi bu delsee nag ci biir réew mi na dem nag ci dëkk bii nag di ci la dara maan fekk fa nag sëriñ Ibra Binta Silla moo ko tarbiya ci ndigalul sëriñ Tuubaa seexul xaddim bi muy jógee gànnaar nag seexul xaddim nag mi nga koy xamal ne soo demee nag ci sëriñ Ibra Binta Silla nang fa jàng nag alxuraanul karim li ko dalee nag bàqara ba naasi def nag ñaar téeméeri yoon ci diirum ñetti at nag la ko sëriñ Ibra Binta Silla tarbiya keroog nag bi ko sëriñ Ibra Binta Silla nag di gërëm ca yéen jolof nag la fekk nag seexul xaddiima bi mu jotee ngërëmam nag ci sëriñ Ibra Binta Silla demaat na ca yéen jolof nag moom sëriñ Mbay Muuma yëgal nag seexul xaddiima sëriñ Tubaa seexul xaddiim nag ñaanal ko moom sëriñ Mbay Muuma mu doog faa jóge waat nag dellusiwaat nag ci dëkk bi waajuram nekkoon di muuma bi mu nag fekk na nag waajuram nag génn àdduna mu nekk nag ci biir kër waajuram boobu itam nag magam nag sëriñ daam jëbu nag delloo nag ci way yi ko doomam defal nag di sëriñ Alaaji Njaay mag ñiy wax nag jaar jaaru waajuróom ni mu jógee nag ci dëkk boobu nag di mbuuma ba ni mu jaare Mbàkke Bawol nag gis Maam Moor Jaara gisaale doomu Seexul Xaddim ba nag di Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke dëkk yi mu jaar ba egg nag ci réew moomu nag di gànnaar ginnaaw bu mu jaayanteeg Seexul Xaddim nag ci gànnaar ba Seexul Xaddim itam nag yabalaat ko ci sëriñ Ibra Binta Silla ngir nag mu tarbiya fa kii maan nag yem fa def ngërëm li mu am nag ci sëriñ Ibra Binta Silla lettre bi sëriñ Ibra Binta Silla itam bindoon Seexul Xaddim ngir mu jox ko ko bare bare bari daal la ñu doom ji nag di sëriñ Alaaji Njaay nag di ñu xamal ci way yim ko defal nag moom sëriñ Mbay Mbuuma nag ñu teewlu ko alhamdulillahi ma sant yàlla di bay le Mbay Mbuuma borom jalaala tey jii ma wax leen yoonu gànnaar wa ak fam jaar ba ñëpp si waajul yoon wa ñeneenti fan ci ndeyu koor ci xatma min yow mi gis nañ ni la génn mbuuma waxtu fajar la fa bawoo di waaxu wata amul saxaar mu waaxu ba yegg xoomaak tey ma wax leen fom jaar ba gis sëriñ ba ca gànnaar kawlax la yendu jëm kebe dem maa yaay dem mbàkki gaay na ko njaay mu jaar kër sëriñ mamar maam jaara am na fa ñaari fan ñu naa ko baara wala njëkk gisee sëriñ fadilu ñu naa ko moo di doomi sittu balla ñenn keroog jox na ko fi hiddaaya ngir xam ne bàyyi ma ko gën ca gaaya génn bawal génn kajoor ak njàmbur génn waalo soog a def ab jàmbur egg na xooma fekk fa riwaaya keroog la ji sang ak nit ak jinne ya wa bi mamadan rasulillahi alayhi xayru salawatillahi keroog la weeru feeñ bu wér sax baana benn fanab déebéer la woon mbay daan na keroog déebéer jafa mu toog ca mbër ma sëriñ jaar fa taar moom la ngëb sa ndeyjoor romb ko jëm ci kër ga waxtu yor yor mu naa ko yaa saxiiru hab lii maa u mu jox ko ndox ma mbay di naan u ba mu wéyee ñu naa ko mooy basiiru mooy doomi waaji woote kay basiiru keroog la bamba boole seen diggante basiiru ak mbay mooma duñu biddante maa di xam booba sëriñ basiiru xam naa fok ak ñaar la xamoon nasiiru ca suba sa di altena seex bamba woo leen babacar defar yanam ba nee na keroog daxaar la fekk bamba mu sol yi weex di ramm koy sonoo ba ba mu ko nuyoo seex bamba laaj ko tur wa mu ne ko babacar ba wax ko yoon wa mu laaj yaayat way juróom ñes ji di xaskan ya xeetu ñay ya Cheikh Bamba laaj ko nim def ak furxaan mu ne ko mën naa ci lu doy xirfaan yi bu ma waxee Seex Bamba aslamtu nafsi mooy la neex yónneen ba yónneen ba jibal moom la wax mbooloo ya demal nga yër leetare mbaa jihaar ya wa bi muhammadin rasulillahi ali xayru salawatillahi kon doo werenteeg sunu sëriñ Bamba lu mu def dafay dafoog mbiram yónneen ba na muy ubbi jullee fu Tuuba Mbàkke moo nekk Madina ak la waroo a Màkka alhamdulillahi imaamu Màkka moom lay ubbee julli imaamu Mbàkke tasab bi ngay tasab fa Tuuba Mbàkke moom ngay tasab fa Madina ak fa Màkka say mbir dëppoo naag yooyu rasulillahi suñ xel dal na dootu dañ billahi naa dëpp seeti Babacar mu baax ma maa ngi ko bawoon fakar daxaar gaak mbër ma foofee la Cheikh Bamba joxe ndigal la Cheikh Babacar jëbu mu xam ma xel la mu ne ko kaay dem bakkajoor fa mbàkkul ma bool la ak ibrasil nga mokkal soo fa demee nga jàng fa xuraan yi ruux nga def ko mi ataan yi te lépp ma doon defal defal ko Cheikh Ibra bind sil la maa koy fay ko te soo defee lii ma wax yàquuk la way jur bëggoon ci yow ñoom ko foofee mbay mbuumay jógaat aw yoon wa ba xaq si mbàkkul mustawa ci yoon wa ba dëkk ba tudd ci la moo doon mun na yow maam ibra la koy woolu laaj ko mu wax ko xaadimu rasul moo ma yebal fi yow na naa fi jàng boole la woolu cheikh babacar jabu kilee ko woolu daal koy xamal fa saasa yoonu tarbiya boole liggéey xamal ko yoonu tarxiya mu daal di toog boole liggéey ak jàng way ci ndigal ba am lu faw ko jàng mas naa jëndal maam ibra wenn na fasunaar woo xam ne njëgg rëy na moo doy waar te waxtu fas wa neex na góor ga te njëgg yomb ko mu naa ko góor nga ku mbay boo ma jógal ko ngir jëmmi Cheikh Bamba ne kon nga yokku foofee la mbay mbuuma defee xar baax ya ci jenn jigéen yu yara dal ca doom ja ci tàkkusaan la ak si wàccee doom ja de ba siy jooy Babacar mooy waaja fa yara dal balum ummu faatu kër siddiixu def na mu ji saatu mu dal di jóg tafli ko doom ja xoole ba nam fa jóg waa réew mi ñoo ko faale mu dal di wér ba mel ni musta feebar baay bak ndayam dikk fa nan ko yaay mbër ca xawurus fiit la weexalee góor ga moo tax mu yóbbuloo ko jox ko góor ga xam na fa yetti at ba jon digal la la xëy xaw yoon wa génn ci la wa bi salawaatillahi booba la maam ibra ba jox ko siddiixu boole ko seex bamba te naa ko man suma manoon defal ko manuma waaye ki man defal ko ngir man gërëm naa ko buur billahi wallahi tey jii daaji teg billahi ki ngay defal rijaalullahi góor ñi am sa ngërëm defal ki mooy waaja loolu la maam ibra bindoon bataaxel jox ko sëriñ mbay mbuuma moom ko am xel wax na yeneeni wax ci biir leetar ba boole ngërëm ak cant yàllay buur ba moo tax keroog ba mbay ñëweeg leetar ba boole caqa wurus jox bamba seex bamba laaj ko fa mbiram wurus wa mu wax ko lépp xaadimay wurus wa moo Cheikh Bamba yére leetar ba jàng ko ñetti yoon defar ca poos ba booba la Cheikh Bamba defar yanam ba yebal ko mbuuma ngir mu yeesal yan ba Cheikh Bamba jox na fa sëriñ mbay mbuuma yére yu weex mu sol ko dikk mbuuma boobi muhammadin rasulillahi ali xeyru salawatullahi moo tax ba réew mi dañ mujj ñëw mbuuma ngir xewal ak Cheikh Bamba gaa ngi mbuuma may na ko lépp lu mayoon seexam ya ñam gërëmoon bañ mujj raw rijaal ya mu jot ngërëm nag ci seexul xaddiim ñibbisi nag ci dëkk boobu nag waajuram nekk nag di mbuuma jàngale itam nag alxuraanul karim bi mu matee jël soxna ñu boole koog nag soxna suñuy wax nag soxna Faati Juuf mook soxna Faati Juuf nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Maxtaar Njaay sëriñ Daam Njaay soxna Fatim Njaay ak soxna Nday Yaama Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Sofi Touré soxna Sofi Touré mii sax nag moo meññ ab taawam di sëriñ Cheikh Njaay dikkim faye nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim amaatoon na baneen bant nag moom soxna Sofi Touré muy ku ñuy wax nag soxna Ndaak Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Ndumbe Xumma mook soxna Ndumbe Xumma itam am nañ benn pant muy kim fay woon nag cheikh mohamadul faadal mbàkkim nu sëriñ tubaa xaadim rasool yoraatoon na baneen soxna muy ku ñuy wax nag soxna aminte ndiine ñang mook soxna aminte ndiine ñang am nañ nag ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ El Hadji Malick di kim fay nag maam cheikh El Hadji Malick sëriñ daam Ndiaye di ñaareelu sëriñ daamam sëriñ Mangari Ndiaye soxna Mariama Ndiaye soxna Anta Ndiaye soxna Ndiaye yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Awa Jaañ mook soxna Awa Jaañ tim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee xadi saaxo mook soxna xadi saaxo itam nag amoon nañ ak njaboot ñu mën cee ràññe nag sëriñ jumba njaay ak sëriñ ibrahima njaay yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna roqeetu mbule mook soxna roqeetu mbule nag benn bant lañ am muy kim faye woon nag cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tuubaa xaadim rasool yoraatoon na soxna suñuy wax na soxna roqeetu jaw waaye mook soxna roqeetu jaw nag amuñu nag ak njaboota soxna yii nag la dëkkoo woon nag moom sëriñ mbay muuma njaboot gi itam nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot googu moo am nag ñoom ñooy ñan doom lañ ko jébbaloon ci dëkk bi nag di caareen gisaa mook sëriñ ma jaxu saar nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ maa saar soxna anta saar soxna satu saar doom ji nag di soxna njaatu njaay bi mu matee dem kër sëriñ ousmane kumbaluum nag lañ ko joxoon mook sëriñ ousmane kumbaluum nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññe nag soxna naabu luum ak soxna koddu luum doom ji nag di soxna ndaak njaay bi mu matee dem kër sëriñ ma sàmba njaay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ ma sàmba njaay nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ basiiru njaay sëriñ ibrahima njaay soxna busa njaay ak soxna ummi njaay doom ji di soxna ndaag nag ba tey bi mu jógee ci loxoy sëriñ Masamba Njaay lañ ko yóbbu nag ci dëkk bi nag di kër Mamar soxna jox ko fa nag ku ñuy ma jéey sekk mook ma jéey na benn bant nag lañ am muy sëriñ mbay sekk doom ji nag di soxna mati demba si bi mu matee dem kër dëkk bi nag di kër daam jëbu nag lañ ko yóbbu woon jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ Mamat Xadi Bajaan Njaay mook sëriñ Mamat Xadi Bajaan Njaay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Mbakke Njaay Baay Njaay sëriñ Daam Njaay soxna Fatim Njaay soxna Seynabu Njaay ak soxna Maram Njaay ginnaaw bu soxna mati demba nag jógee ci sëriñ moom mat xadi bajaan njaay mi dañ ko yóbbuwaat nag ci dëkk bu ñuy wax nag njaayeen kada moom soxna mati demba nag ñu jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ tamsir njaay mook sëriñ tamsir njaay nag am nañ ak njaboot muy sëriñ elaaji mati njaay ak ku ñuy wax nag sëriñ njoogu njaay doom ji nag di soxna jëbu njaay bi mu matee dem kër lañ ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax nag dàgga sàmb jox ko fa nag ku ñu wax sëriñ alin luum soxna jëbu njaay nag mook sëriñ alin luum nag am nañ ak njaboot wala am nañ benn bant muy elaaji mbay luum ginnaaw bu soxna jabu jógee nag ci dëkk bi nag di dàgga sàmb loxoy sëriñ alin luum lañ ko yóbbu nag ci dëkk bi nag di ndakaaru ñu wax sëriñ mamat xumma mook sëriñ mamat xumma nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññe nag sëriñ fàllu xumma ak soxna ndumbe xumma doom ji nag di soxna mareema njaay bi mu matee dem kër nag lañ bi nag di gànjaay ñu jox fa nag ku ñuy wax sëriñ cheikh njaay mook sëriñ cheikh njaay nag am nañ ak njaboot ñu mën cee nag sëriñ ko yóbbu nag ci bu ñuy wax nag caareen kër bàcc sàgge jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ bàcc sàgge ci boppam mook sëriñ bàcc sàgge nag am nañ mbay sàgge sëriñ baara Saage sëriñ Moustapha Saage sëriñ Adama Saage ak soxna Awa Saage Adama ak Awa nag ay seex lañ ak ku ñuy wax soxna Satu Saage soxna Yaasin Saage sëriñ El Hadji Saage ak sëñ El Hadji Roqi Saage doom ji di soxna Njaay bi mu matee dem kër lañ ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax nag Mbajeen Waalo jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ ma soxna Mbaj mook sëriñ ma soxna Mbaj nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ne soxna Aminta Mbaj ak soxna Satu Mbaj doom ji nag di soxna Fatim Njaay bi mu matee dem kër lañ ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax nag Julee Xaar jox ku ñuy wax sëriñ Masamba Mbeng mook sëriñ njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ mbay mbeng sëriñ moodu mbeng soxna maam jaara mbeng soxna aadama mbeng ak soxna awa mbeng soxna aadama ak soxna awa nag ay ji nag di soxna nday yaama bi mu matee dem kër lañ ko jox nag ku ñuy wax sëriñ cheikh ka mook sëriñ ka nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ ka soxna awa ka soxna faatu ka ak soxna katoo ka njaboot yi ñu leen tuddal nag ñooy lenn nag ci sëti sëriñ bi mu wéy des nag ci dëkk boobu nag waajuram nekk di mbuuma nekk itam nag ci saalum wéy itam nag des itam nag ci dëkk boobu nga xam ne nii itam nag fa la bàyyi ko ñëwoon gànn gànnaar nag fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiima ci dëkk boobu nag di mbuuma taxawaloon na fa nag daaray alxuraan joxoon ko doomam nag sëriñ El Hadji Ndiaye mu nekk fa nag di jàngale alxuraanul karim ba tax na nag ñu takkoo takkoo takku nag jaar nañ nag ci daara jooju dëkkam bii mu sanc nag te tudde ko nag magam di kër daam jëbu soriwul nag dëkk bii nag mu bàyyi koo demoon fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim di muuma seenub diggante daal koo xayma nag ci ñaar fukki kilomètre mu sancaat fa nag ab dëkk tudde ko magam di kër daam jëbu magam jooju mu bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen nag di fa dëloon féetale ko fa nag mu nekk fa dëkk boobu itam nag nekk na fa nag ab diir nag doog faa bàyyi ko waat nag ñëwaat nag ci dëkk bii waajuram nekk nag di muuma dëkk boobu itam nag di kër daam jëbu taxawaloon na fa itam nag ñaari daaray alxuraanul karim benn bi nag mu joxoon ko doomam sëriñ maxtaar njaay beneen bi itam nag mu joxaatoon ko doomam nag sëriñ fàllu njaay daara yooyu itam nag mbooloo mu takkoo takkoo takku nag jaar nañ fa ci wàllu jàng alxuraanul karim mu taxawal itam nag ay daara tarbiya bokk itam nag ci mag ñi toogal sëriñ tubaa seexul xadim nag ci saalum lépp loo xam ne ni daal gis na ko baax nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim dana ko jël nag it seexul xadim lépp loo xam ne itam nag gis na ko mu nekk itam nag luy sagal yoonu murit itam loolu itam nag ma nga ca moo tax itam nag relation bu yaatoo yaatoo yaatu daal la am ak mag ñi nekkoon saalum nag ngir ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadima mu wéy des nag ci dëkk boobu nag di muuma wéy bii mu sanc nag tudde ko magam di kër daam jëbu mu wéy nekk nag taalib ku baax ki tubaa seexul xadim bokk itam nag ci mag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk itam nag ci saalum toogal fa nag yoonu murita mu def itam nag lu takkoo takkoo takku nag ci saalum saalum googu defar itam nag ñu bare bare bare bare bari nag ci saalum googu taxaw fa nag taxawaayu seexul xadiima mu ànd ak ñoo xam ne ni nag lépp loo xam ne ni nag addiya la moom la daa yit seexul xadiim nag ñoom nag ñoo ko bokk nag liggéey mu nekk nag seen jëwriñ nag ci yoon wi ñu man cee ràññee nag ay góor yàlla nag yu takkoo takkoo takku dëkk bi nag di dàgga sàmbu sëriñ mbay muuma nag amoon na fa nag ay taalibe wala amoon na nag taalibe yoo xam ne nii nag fa lañ dëkk ñu mën cee ràññee nag sëriñ abdu xujja luum mën cee ràññee nag sëriñ alin taal mën cee ràññee itam nag sëriñ jàpp taal dëkk bii nag nag di njuufeen bari ca ku ñuy wax nag sëriñ Abdou Taal ma nga fa woon sëriñ Moodu Mbàkke Juuf sëriñ Mbay Ba sëriñ Souleymane Dieng wala sëriñ Souley Dieng dëkk bi nag di Mbajeen Gujali ku ñuy wax nag sëriñ Wàkk Mbàcc nag ma nga fa woon sëriñ Karim Mbàcc dëkk bi nag di Caareen Gisa ku ñuy wax nag sëriñ Abdou Kebe Saar ma nga fa woon sëriñ Alioune Saar sëriñ Daam Taal sëriñ Kasaba Saar dëkk bi nag di Njaañ Legeen sëriñ Mamad Njaxe sëriñ Ibra Xaar dëkk bi nag di Mbuuma sëriñ Malik Njaay sëriñ Ñang Njaay sëriñ Sadagga Njaay sëriñ Muudi Njaay ak sëriñ Ngumbu Penda ak ñeneen ak ñeneen i góor yàlla nag yu mu àndaloon nag di liggéey di it nag ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xadiima mu féete woon nag seexul xadiim nag ci njàngoom alxuraanul karim woon itam nag di tarbiya nag ay doomu aadama ba tax na daal tundu saalum woow itam nag ñu baree baree baree bari nag nawoon nañ ko fa ndax seexul xadiim lu baree baree bari itam nag def na ko fa itam nag ngir yoonu murit itam nag jëm kanam xasid ak sëriñ Tuubaa gii nag ñu tudde Fathul Xafaar mas na ko bind nag ba mu egg nag mu yitaat ko sëriñ Tuubaa seexul xadiim seexul xadiim nag fabaat xasida googu nag joxaat ko ko ba tax na nag lu takk sàkku itam nag ci njabootam xasida gi ñu tudde na fatxul xafaar seenu xasida na nag soo delloo nag ci marché bii ko doomam nag sëriñ alaaji defal mag ñuy wax nag taxawaay googu nag mu amoon ci mbuuma kilifa yu baree baree bari yi nga xam ne nii nag fekk nañ ko fa kiimaan yi nga xam ne nii nag daana ko fa defa dëkkub ziyaar bu nga xam ne nii nag muuma nekk na ko ngan yi nga xam ne nii nag doomu seexul xaddim itam nag daanañ ko fa fekk si rawatina nag seex cheikh mamadul bachir mbakke dëkk bi nga xam ne nii nag sanc na ko nag tudde ko magam nag di daam jëbu addiye yi nga xam ne nii nag daan na ko yit nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim def lu baax nag gam fa nekkee woon lu yaatoo yaatu daal ci nekk googu mu nekk nag ci tundu muuma googu nag dafi def lu baax lañu doomam ji nag di sëriñ Alaaji Njaay nag di ñu xamal ci tënk gum tënk nag dunduk sëriñ Mbay Mbuuma ci mbuuma ñu teewlu ko waa mbuuma yéen war ngeen a sant yàlla te fonk mbay mbuuma te jaamu yàlla képp ku ñëw fa mbuuma ngir Seex Bamba ak Babacar Saddiixu raw nga booba am nga ngërëm fa yàlla ak rasuulu ak Seexu Bamba Xaadimu Rasuulu ca yooyu weer lay tàmbali am njëbbal ca góor ñi ak jigéen ñi ñëpp jébbal Seex Babacar seen seen mbir ya daal koy wóolu ci seen digg ak Seex Bamba ak rasulu looloo taxoon mu sax fa mbuuma ay xat di fekk Bamba di siyaare moo mat ku fonk xaddi yàlla moo gam yàlla lu mosaam jox Bamba ngir xam yàlla du tiim ci ak julleem du julli wéeru gisuma woon muy kaparoo ko buuru moo bëri woon diine te am wilaaya ña ko xamoon ci booba raw nañ gaaya moo tabi woon te mos la def njistal lu waaye tawat mu faj xol ba sell xamsatu min xisbin fi kulli yawmin moom la saxal ci quraan li yawmi ali xayru salawaatillahi ca yooya at la génn sañ ci kër daam mburi yëttu ci xàll ba am na fay ndam fekkoon na ñuy nawet fa kër maam kaatim donga yàlla wax ñoo juboo kër xaadim kaatim kumba la tuddoon moo mbay mbuuma àll ba ba far ko yaatal gas na fa ñetti teen ba ñeenteel ba la suga am ndox njooga doon mosong ba moo doon simang ba gaaña fekkoon foofa jëmm ja ñëw nañ déglu ma xam foofa moo ma ko wax man xaaj ji duma fàtte ngir waxe mbay mbuuma ji moo ma ndax moo ma jiitaloo ba tax may jiite na ma waxal ngir yàlla ak rasulu ak sayxu bamba xaadimu rasulu looloo waral may wax ci biir mbooloo yi jàng moon waaye moo a sol maanaa yi man mosuma fanaan ci benn jàng muy daara lii mbay mbuuma moo ko faggu jàng moon ndawu xarootug bayaani waaye jàng naa seex bamba raw rawaani képp xam seex bamba raw nga gaaña fooriya ak kàngaam yeena moo raw gaaya walli ya xutbu ya ak abdaaliya moo leen rawoon ak ngir ya moom rekk man waaju xamul baa ak siin mbooloo mu topp ko mu mel ni buur xam naa ci téeréem doy xirfaani xam lu yeneen ba xam xirfaani sëriñ basiiru ñëw na kër daam jëbu fekk si baabakar fa suñ maam jëbu te fekk booba xaadimu rasul ma nga fa jurbel kooko moom la wóolu gannaaw ba seex bamba jógee fa jurbel ñibi fa tuuba baabakar moo jël sëriñ basiiru mbàkke jox ko boppam boole la muy liggéey si suñ boroom moo njëkk a jox sëriñ fiisi saalum téeméer ci ay dërëm ñu naan ko maalum ci xaalisam ngurdu bu weex mu jokk sëriñ basiiru te taxul xaalis bu toll noonu sëriñ basiru daan na am fa kër daam lu mat juróomi fan li lay di ay ndaam réew mi di ñëw di jébbuli siyaare góor ak jigéen ñépp ko daan siyaare huwal basiru wa huwal nasiru huwal xaliimu wa huwa sururu mooy sunu mbég moo gën a xam rasulu moo wayloon barsan ba ngir rasulu moo fi rawoon ci xam-xam ak wilaaya ak alal ak taar ba raw na gaaya ko bi muhammadin rasulillahi aliya xayru salawatillahi ma dellu xam la seex babacar njaay ci digg mag seex bamba ba woo kër daam ngir siyaare seex bamba jurbel fu mu ko gis moom maari ba mu nuyoo daam na na ngeen ko yaatal jox ko palaas Cheikh Bamba moo ko sargal mu dal ka fay bàyyi duggaat ci kër ga si tuun mu del si fekki mbay ca kees ga keew la fab ay mburu boole suukar ñëw jox ko baaba Babacar mu di yesikar fi yeddi Seyxi Bamba ila siddiqi li saydi Seyxi Babacar xaqiiqu keroog la réew ma yéemu ngir mbay mbuuma ndax la moom Seex Bamba mbër ma kër daam la toog ba at ma tolloog sasasin mooy axat ma yónneen jógee Xuraysin te yu mat sitiina loolu mooy mbir mu ñib si mbuuma toog fa kër Basiiru waa moom maane fu ñu toll yu waaru réew maa ngi ñëw di gàmmu si siyaare Cheikh Babacar ba mu jaam siyaare wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatillahi mu dellu woote màggal ak maam jaara fa poroxaan moo am ngërëm fa jaara màggal ga moo ko sos wax bés ba ak weer wa ak at ma ne maa xam bés ba xat mooma lim naa ko mu tolloog tam sa sin ku dem ca màggal ga raw xuraysin loolay xatam gàddaay ga maa konte mu jox ma lim ba yéen na ngeen ko konte sëriñ Basiru Mbàkke moo ko seere defar na cheikh baaba aljuma ju mujj moo doon bis ba basiru mbir ma mu wax rajab di ndeyi ko rañaan ma màggal ga ñëw na ñëpp ngi dem poroxaan nit ñi di bas ma si di barke luy ñaan ku dem fa poroxaan bisu màggal ga am nga ijaabatu te nga makka fa yàlla ak yónneen ba am nga seede fa sayx bamba mbër ma doomi jaara wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatillahi tabax na jàkka ja tabax xabroom ba soxna su tedd saa ngay sant baaba cheikh basiru mbàkke wax mbay mbuuma ngir ba ak màggal ga doy na mbig ma nee na ko ñëw ngir bés ba le ba ñuy taxaw xiyaamu bés ba jaamam nga am nga ca tuddee mu am ca lu yem ni yool ba liee gën a alal ja mu wéy des nag ci dëkk boobu nag waajuram nekk di muuma wéy itam nag des itam nag ci dëkk bii mu sanc nag te tudde ko magam di daam jëbu ànd ak itam nag mag ñi toppoon sëriñ tubaa seexul xadim nag te nekk foofa ku mel na sëriñ musaa tafsir daraame ab xaritam la woon doomu sëriñ musaa tafsir daraami bii ñu tudde nag sëriñ baabu bodee sëriñ mbay muuma tudde na ko doom moom itam sëriñ mbay muuma baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim te nekkoon itam nag ci Saalum ku jaxasoo woon ak moom la ba foboon na magam ji mu bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen nag di sëriñ Daam Jabu bi mu gisee ne daal ànd ak sëriñ Touba Seexul Xadim moom sëriñ Daam Jabu lu am njariñ la ci la waxoon nag na sëriñ Mbay Muuma damaa bëgg a jaayanteeg yow nag nekk nag sab taalibe di la liggéeyal nag ngir sëriñ Touba sëriñ Mbay Muuma nag di ko xamal ne maag yow nag ñoo bokk nag waajuru góor nag ak waajuru jigéen yow nag yaa ma ci mag may toog ci kaw nag ngay toog ci suuf di la jox ndigal itam nag dana ma tiis lool nii ñoo bokk nag ku ñu yaakaar nag di sëriñ tubaa seexul xadiima dama laa bëggoon a yóbbu ci moom nag nga jaayante ak moom nekk nag ab taalibeem ku jaxasoo woon ak cheikh mamadul basir ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul màggalug poroxaan suñ demee nag ba mu nekk nag ci loxoy cheikh mamadul basir ginnaaw yàlla nag sëriñ mbay mbuuma mii nag la tudde woon na mu dul basir mbàkke doom bi fi seexul xadim nag bàyyi ko ci atum 1927 sëriñ mbay muuma cheikh mamadul basir nag la joxoon boppam ba nag ak njabootam gii nekk poroxaan ñu koy wax kër sëñ basiiru dañ gën koo xam nag ci kër sëriñ moustapha mbàkke basiiru sëriñ mbay muuma nag moo ko defaral cheikh mamadul basiir ci 1950 tudde woon na cheikh mouhamadul faadal mbàkke doom mu wéy des nag ci dëkk boobu nag di muuma di yar di jàng nag ak di jàngale ba ci 1912 wala ci jeexantalu nag 1911 ci la am nag ku jóge woon nag ci saalum ñu koy wax nag sëriñ baara taal ci dëkk bii nag di fetto nag la jóge woon fetto nag mu ngi ci yoonu nag waa ku ngënawi demoon seexul xaddiima sëriñ baara taal mi nag bi mu eggee ca yéen nag ci jeexantalu 1911 ci la sëriñ tuubaa seexul xaddim nag wax nag la dama laa ne ko nag barabu soxna soosu wala barabu soxna si nag di soxna jaaratullaahi di sama waajur na ànd nag sëriñ musaa tafsir daraami ak sëriñ mabba awa njaay moomu su demee nag ñu yeesalal ma ko sàmmal ma ko bi sëriñ baara taal nag jógee ca yéen la jëm si woon nag mbuuma bi mu ñëwee nag ba ci pont bii ñu tudde cheikh mamadul basir mbàkke nag ci kaw la ñu bare bare Maari gën koo xam nag ci pont Noiro ci la fekk nag sëriñ Mbay muuma mu jëm si woon Kaolack mu di ko xamal ne nag muuma nag laa jëm si woon Seexul Xadim nag mu yónni woon ci yow sëriñ Mbay muuma nag di ko xamal ne yóbbanteb Seexul Xadim nag bala ma koo wax may ma nag ma wàcc fas wi dara nag du jóge ci Seexul Xadim nag di ma fekk nag ci kaw ginnaaw bu mu wàccee nag ci suuf nag la koy xamal ne daal man sëñ Baara Taal mi bi ma demee ca yéen la ma Seexul Xadim nag xamal ne yóbbantewuma la dama laa yónni soo demee nag nga waxal ma nag mbay muuma moomu mook Musaa Tafsir Daraame sëriñ Mabba Awa Njaay barabu bu soxna si nag ñu topp tool ma ko sëriñ Baara Taal moom nag ci dëkk bu ñuy wax fettoo nekk nag ci wetu Ndofane nag la dëkkoon mujj gi nag poroxaan nag la mujj dëkk ba nëgën itam nag ak njabootam itam nag ñu ngi poroxaan sëriñ Mbay Muuma nag wax nañ ne nag Kaolack nag la jëm si woon foofu itam nag ci pont Cheikh Mamadou Bachir ñu gën koo xam nag ci pont Noiro nag la dëppee delluwaat nag muuma bi mu eggee itam nag la dem nag daaru Pakacaar ci sëriñ Moussa Tafsir Daraame dem nag ci sëriñ Maba Awa Ndiaye di leen xamal ne nag ndigal nag jóge na nag ci ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim sëriñ Baara nag moo ma ko wax xaddim nag nee na ñu dem nag defaral ko nag barabu soxna si ginnaaw buñ ko defaree nag ba noppi sëriñ mbay muuma nag da doon def nag at mu jot ci weer wi nag du maamu koor ci àjjuma nag jëcc mujj saa bu dikkaatee nag mu dellu poroxaan nag yeesal itam nag barab ba yendu fa itam nag ba ngoon toppoo na ko nag ba ci atum 1948 ci 1948 nag lañ fa njëkk yóbbu oto taalibeem bii nag dëkk nag ci dëkk bu ñuy wax njuufeen parica di Abdou Tall moo fa yóbbu woon ñu yóbbaale fa nag am xaritim nag mu weex xar moom nag lañ atum 1948 wàcce fa itam nag ab kaamilub alxuraan ci atum 1949 itam nag da at ma ca topp ñu demaat fa wàcce waat fa itam nag ñetti kaamile alxuraan ci atum nag di ñetteelu at moo xam ne nii nag dem nañ fa nag di fa wàcce alxuraanul karima la sëriñ mbay muuma a wax nag sëriñ Mamour Bil di ko wax ne daal na dem nag ci ma cheikh Mamadul Bachir na ñëw nag mu jox ko nag barabu soxna si sëriñ Mamour Mbacke Bil nag ñëwee ba wax loolu nag cheikh Mamadul Bachir Mbacke cheikh Mamadul Bachir itam dafa yónni waat sëriñ Mamour Mbacke delluwaan nag muuma bu demee nag mu wax sëriñ Babacar Jëbu di ko xamal ne saalum nag munuma fee ñëw nag te amuma fi kër wala amuma fi nag wàccuwaay ci la sëriñ Mbay Jëbu ñu gën koo xam nag ci sëriñ Mbay muuma defaral ko nag ak kër nag ci poroxaan kër gi nag cent mètres nag yu carré la moo jàkkaarloo nag jumaa ji moom la ñuy wax nag kër sëñ Moustapha Mbacke Basiiru nag jamono ji ci atum 1950 nag la sëriñ Mbay muuma nag tàmbali kër gi ci atum 1952 nag la noppi ci atum 1953 nag la ci Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag njëkk a màggal Basiir Mbàkke itim sàkk woon na itim nag ci sëriñ mbay muuma mu wut nag kërug poroxaan kër googu nag ba nëgën itim njabootug sëriñ mbay muuma itim nag fa la ñuy màggalee bi ñu màggalee nag ci atum 1953 nag ba noppi ñeen fukki junni moom la barabu soxna si nag am nag ci ma Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke itim da koo jël yónni ku ñuy wax sëriñ Mamor Mbàkke bil sëriñ ma xujja gajaga ak sëriñ musa Guèye di leen xamal ne daal suñ eggee ba gis sëriñ mbay muuma ñu xamal ko ne daal ñeen fukki junni yii nag mooy àddiyay barab bi dañ jox ko ko ginnaaw Mor Mbacke bil nag xamal nag yónneeb Cheikh Mamadou Bassir nag sëriñ Mbay Muuma sëriñ Mbay Muuma itam nag dafa jëlaat xaalis ba joxaat ko nag sëriñ Maam Mor Mbacke bil di ko wax na nag na delluwaat nag ci Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag joxaat ko addiye yi xamal ko nag sëriñ Mbay Muuma nag nee na nag du ko laal buggul nag ab liggéeyam nag seytaane am ci yoon ginnaaw bu sëriñ Maam Mor Mbacke ñëwee nag ba xamal lool nag Cheikh Mamadou Bassir Mbacke Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag mi ngi ko doon xamal ne xamoon naa ne nag du ko jël waaye nag dama leen doon xamal nag fi mu toll nag ci sëriñ Touba Cheikhul Khadim Cheikh Mamadou Bassir Mbacke amoon ak Serigne Mbaye Muuma ànd nañ ko nag di ko amal ba ci atum 1966 ñoom ñaar ñëpp nag ñu bokk nag génn àdduna nag ci même at moomu Serigne Moustapha Mbacke Bassirou itam nag wéyal na ko ci njabootuk Serigne Mbaye Muuma gi ba ni mu fi bàyyikoo nag ci atum 2007 Serigne Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Bassir Mbacke moom itam nag mi ngi koy wéyal ci njabootuk Serigne Mbaye Muuma gi dana def itam saa bu màggaluk poroxaan nag desee bis bu delsi mu woolu nag rajo bii ñu tuddee RTS nag bu Kaolack woolu itam nag njabootuk Serigne Mbaye Muuma ne itim daa bëggaat itim nag ñu fàttaliwaat nag nit ñi màggaluk poroxaan nag ni mu tëddee ngir itim nag ñëpp xam ne itim nag màggaluk poroxaan nii la ci Cheikh Mamadul Basir Mbàkke jotee loola itim nag bi Sëriñ Muntaxa Mbàkke toogee xalifa ak léegi itim nag mi ngi koy def nag at mu jot saa bu màggaluk poroxaan nag desee nag bis bu delsi soo delloo nag ci way yii ko doomam way nag di Sëriñ Alaaji Njaay mi ngi ñuy wax nag bisub kero nag bi Sëriñ Baara Taal jógee nag ca yéen Jolof ziyaara ji nag ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim Seexul Xaddim nag di ko xamal ne su demee muuma na gisee ak Sëriñ Bay Njaay muuma mu xamal na sëriñ Moussa Dramé ak sëriñ Mabba Awa Njaay ngir nag ñu toppatool ko nag barabu soxna si ni ci sëriñ Mbay muuma nag doxalee ak njabootam itam nag cër bu yaatu nag bu ñu am nag ci màggaluk poroxaan loolu daal la ñu doomam ji nag di sëriñ Alaaji Njaay nag di ñu xamal ci way yii mu jagleel nag sëriñ Mbay muuma pàcc bu yaatoo yaatu nag la ci jagleel nag jaar jaaru poroxaan googu nag ñu teewlu ko Bamba waxoon Baay Maba ak Cheikh ba Baay Baarataal mooy ko demoon siyaare ji Jolof la fekkoon Bamba jóg gisee mu njëkk gis mbay mbuuma jotal ko wax ja xaadi may suñ mbër ma mbay mbuuma ne moo njëkk jot xibaar ba kawlax la doon dem ñu dajee ci pom ba pom booba xànq la woon xat yooya lañ ko tabax pomaar ko daan na mbër loola waral mbay mbuuma séddoo poroxaan wax jooja bambaa ko waxoon ca baawaan néeg baari xabru jaaratullaahi wax lañ ko defoon booba leneel bilaahi néeg booma ñax la woon gaxeg ga wax la jën yu rafet xat bu rafet lañ boole booba jamaano wuti nag jamaano bi ñu dajee bur yàlla mooy jamaano soo fa demee tey néeg ba def la yiimu ba ak mbooloo ma lee ci yiimu gaa ñi ma wax ñoo ba ca jooja jamono Samba maa leen ko wax man xaaji sañ mbay mbuuma moo ma ko wax mo way ko fii ci mbuuma ku weddi wax ji suñ demee fa bés ba yowmal xiyaam nga rus fa doo gis Bamba ku bëgg a xam diggante Seex mbay mbuuma ak Seex Bamba na nga jóg déglu ma kon day nga xam lu wér ci seen diggante moo ma ko daa wax yéen bu leen ci wuute waaju xamul ju bëgg a xam na laajte ndax ne mu xam lu mu xamuloon mooy hitte xam-xam du doy jàng du jàng nañ xeewu Bamba ko wax déglul ma wax la way wa xam-xam du doy jàng du wéy nañ yeewu Bamba ko wax déglul ma wax la way wa taxalumi muddatu xomrika sawaban taxnami bambaa ko nga seet ko fa bul ma siise te loolu moo di na nga sax di baamu téere bi tey xam lu ki lay imaamu di jàng téere bi kay rasulillahi te sax ci xam lu fekk demoo fallaahu bambaa ko digle téere bay quraanu ku def lu bamba digle am ridwaanu wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatillahi na ngeen xeraw lu déglu fii ma wax leen ci mbooti mbay buumu lu wér mu neex leen mas naa nelaw ci tooj ci tooli baayam ci jamonoy ndawam ki lay di yaaram xel ba mu ko jàngee xel mi dolli naa dal mu gis ci biir leetar ba wax ju mag ñu koy xamal boppam ci waaju mag te booba baayam a nga fa néegu mbuuma tool yaa ngoon pom néegu abdu maama te booba at ya fukk juróom la ca mooma at moo borom jalaala su dóorul ahraar mooy asraari ni kon danaa ak fum jaari nekkul ci dënnab kenn kenn ku dun man mbay mbuuma moo ma ko xibaar maa fa di ko siyaare muy bisub àllarba fekk muy jàng ci téere bamba xam naa wax ci biir leetar ba duma ko wax dafay waral ñu ba weddi ko te kuñ duñ baax le ku weddi waaye yàlla dootoo baax le wa bi muhammadin rasulillahi ali xayru salawaatillahi mas naa baxoo ndaraame ñëw ca dex ga keroog la def xar baax yi him waa jookaa moo jax ndigal dango ya xeeg ca gaal ga moom mu taxaw foofee ca pegg dex ga ba gaañi jàllee fekk mbay mbuuma mu jiitu leen fa loolu yim na réew na naa jàll way te xam ne kii xar baaxam su ma ko dee lim dootuma wax mbaaxam xam na ngërëm boole ko li jaaba faj xaajo moo ca gaal du laaj dërëm ba du Cheikh Bamba mooy aayaatu wa bi muhammadin rasulillahi ali xayru salawatullahi bëggul wotoog yér yi foor mbaa kër ya bëggul fasak naqar mbaa bay ya lu mosaam ci yooyu jox Cheikh Bamba mbaa waa këram ak ku na Cheikh Bamba képp ku dikk képp ku tudd xaadimu rasulu fa moom mu daanu lu mu xam fab jox la day daanu ak leer moo rawoon murid ya gaañu saxoo jëlli ya ne ca tool ya daa liggéeyal yàlla ak rasulu ak Seexu Bamba xaadimu rasul sëriñ mbay mbuuma nag mi ngi génn bisub àllarba fukki fan ak benn nag ci weeru rajab ci atum 1386 nag ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak benn nag ci weeru rajab ci atum 1386 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mercredi 26 octobre ci atum 1966 mercredi 26 octobre 1966 Serigne Abdul Akim Mbacke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu Xaadim Rasool moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci dëkk boobu nag di mbuuma soo delloo nag ci way yii ko doomam Serigne Alaaji Njaay nag way mi ñuy xamal nag weeru rajab woowu nag waajuram génn àdduna ci weeru rajab woowu itam nag la giseeg seexul xaddim nag ci gànnaar fan yam génn àdduna nag ci weeru rajab bis ba ay soxnaam yi nga xam ne nag ñoom la àndaloon nag di liggéey denc googu ñu ko denc nag mbuuma lu yaatoo yaatoo yaat daal la ñu doomam ji nag di sëriñ alaaji njaay nag di ñu xamal ci way yooyu nag mu jagleel nag waajuram nag ñu teewlu ko mbuuma la toog ba at yi mu laan lëggéeyal bur yàlla mar ridwaan ñëw daal lu koy jël ci peyi aljana ja gaayee teeru malaayika yërmande ja waa xuuru alxuuru wal wildaanu ñoo ko muñ ñu daldi sanc pey fil jinaani xéewal ga wër ga foofa coonam jéena jigéen wul ay na seen leeraay ba xet ga ak waaj taay wa ak taar ba benn kawar ci ñoom bu feeñoon dunyaa góor ñëpp toog mel ni jigéen la sunyaa seeni mbir wax ko xajul ci téere bi ñu waye mbay mbuuma falaa tiiri ridwaanu ubbil ko bunti jinaani mu daldi wey ca kër yi toog ni di dinaani ci ñoll yaa ca ya ak ca sooma ak dég ba muy kaw sara ndox mu ñuul ma muy xatum xaamu waf sa sin taarix ba maa ba xam ko woon na buur ba weeru rajab fukki fan ak benn ya la fi bawoo dem wan gannaaw doomam ya ak dong ya ak soxna ya xejjam ya ko dib jullit ñëwoon nga ca fan yooya ñele di jooy ñele di muñ nañ sant ndax noonu àddinaa ni mel day gent bisub ba waxtu yoor yoor la la ruuga dem ñu toog ba waxtu laylaa ñu fab ko dal koy yóbbu fa xabroom ba guddee keroog la fekk seex bamba toog nañu ba waxtu woowa kenn yegul ko góor jigéen kenn yegul xamuñ ko weeru rajab bamba weeru rajab la fekki har cheikh bamba jipee ajjana ya ak rasulu ñoo ñooy dalal ca ba nañ ko wóolu ku topp mbay buuma ba dem aljana ak cant wër la dootul am finna alhamdu mooy cantu gu wér lillaahi ñeel na buur borom bindeefi lillaahi cheikh bile mooy mbay mbuuma maa ko màggal danaa woyaat soxnaam ya door a yeggal ma ñëw siyaare soxnaam ya lëggéeyal sëriñ bu baama ndax maam ak njiggal fatimataak aminataak safiya soxna xawaak ndummi xamaa xadija roqiyataak roqiyatook taaramba turé wa fatima sëriñ bay mbamba ñoo nekkoon ak mbay mbuum fii ci duniya am nañ ngërëm ak këri aljana yooya turi soxnaam yooyale am nañ maana ñëw leen taxaw déglu ma wax leen maana faatimataay doomi rasulillahi aminataay ndeyi rasulillahi safiyatoy soxnas rasulullahi man ko jëlee xaybar ci xeex billahi ciw tam xarit xatum juróom ñaareel ma ca la demoon ci wàllu saama xeex ba toj tata ya ray yéeféer ya keroog la jël safiyat ak alal ja fii laay taxawlu jógu moon ngir xeex ya mbay mbuuma laay way waaye xam naa xeex doon xaree ca xaybar ak madina ñeneente fan mooy dox ba ngir sori na xam naa rijaal yaag ya xam raayaam ya ak yaag weer ya te xam na bis ya soxna xawaa jur yonent yàlla seex sa moog aadama jur kuy mindeef ci suuf si mindeef yépp ñoo bokk jenn maam ji muy aadama ak xawaa ku weddi laaji xadijatay soxna si rasulillahi moo njëkk jébbuli ci moom lillahi roqeetaay doomi rasulillahi moom la joxoon xosmaan na leen billahi tur yi ñooy soxnaam ya soxna ndumbe moo leen ëpp taar toog mustaru mbuubi liggéey bañ doon liggéeyal sëriñ mbay mbuuma barkeem bi yal nañ ko jot ak mbóot ya alxaaji njaay siyaare mbay mbuuma boola ca soxnaam ya di xeñtu mbóot ya way naa ko ngir sax ngërëm ca baaba feeñal gannaaw num doon liggéey fa mbuuma ku dégg way wi nang ma dal di ñaanal ñu bokk ñaan suñu xaajo kon duñ jeexal waaji xamul war naa nangoo dagaani ci ku jeexal mbaa mu dem yalwaani ay xalifaam nag nii la tëdde sëriñ cheikh njaay di kim woon nag sëriñ a wuutu 1966 ba ci atum 1984 ñaareelu xalifa sëriñ Mbay Muuma mooy sëriñ El Hadji Malick Ndiaye dikkim fayam maam Cheikh El Hadji Malick si nag bu tiwaawoon moo ko wuutu nag ci atum 1984 ba ci atum 2010 ñetteelu xalifa sëriñ Mbay Muuma ci atum 2010 la ba ci atum 2018 muy sëriñ Mangaari Ndiaye sëriñ Mangaari Ndiaye mii nag mujj nag ci ay doomam yu góor liñ tudde nag sët yi nag tàmbalee wuutu nag seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam ci atum 2018 la ba nëgëni ñu koy wax sëriñ Mbay Ndiaye di aw turandoom di doomu sëriñ Ahmadou Naabo Ndiaye moo fi nekk nag ci atum 2017 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ Mbay Ndiaye muuma sëriñ bi nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci luñ tudde ak màggal ay taalibeem nag ñoo dajaloon doon ko xamal ne daal dañ laa bëgg a wutal nag bis boo xam ne nii nag bisu màggal a ne bisub siyaar lañ koy tuddee bisub siyaar boobu nag la jàpp nag méngale nag bisub màggal daanañ ko ko defal nag ci bi mu fiy nekk ginnaaw bi ñu tudde bisub siyaar ñenn ñi di ko wooye bisub màggal nag amul date fixe nag ci at bi saa bu ci njaboot gi dëppoo nag lañ koy amal ci dëkk boobu nag di mbuuma am na beneen bis nag itam bu mu daa defal boppam muy gàmmu gi ni ko sëriñ Tuubaa Seexul nag sàkku woon ci mag ñi ci bu njëkk ñu daa ñëw bari nag ñoo nekk itam nag ci seen ginnaaw seexul xaddiim itam nag sàkku woon nag itam nag ci mag ñi gàmm nag ñu bañ koo bàyyi waaye kenn ku ne nag nga koy defee nag ci sam pénc sëriñ mbay mbuuma mi itam ci dëkk boobu nag di kër daam jëbu nag daana ko fa defee ca ba mu fay nekk ginnaaw bu mu fa jógee itam bàyyi na waa kër daam jëbu nag di ko def waaye mu ñëwaat itam nag ci dëkk bii nag di muuma foofu itam nag ñu di ko fa amale amal na ko fa nag ci giirub dundam ginnaaw ko itam njaboot ndigal loolu sëriñ tubaa seexul xaddiim joxoon bu yaatu bi nga xam ne nii nag njaboot gi itam nag am nañ ko nag ci màggalu poroxaan ndigal la loo xam ne nag sëriñ tubaa seexul xaddim mas na yónni nag ku ñuy wax sëriñ baarataal ci ziyaare nag bu mu ko woon ci ca yéen jolof mu di ko xamal ne nag yóbbantewuma la dama laa yónni soo demee na nga waxal ma nag mbay muuma nekkoon nag na dem nag ca bara bu soxna si te fonkal ma ko loola itam nag sëriñ mbay muuma déggiwu ko woon ak nopp yu tëx daana def nag at mu jot itam nag mu dem yeesalaat barab ba defaraat ko wàcc fa nekk ay kaamil alxuraan cër boobu itam nag ba nëgëni itam nag ci màggalu poroxaan gi njaboot gi itam nag ñu ngi koy sàmm daal bis yi daal mooy bis yi gën a wér nag ci njabootu sëriñ Mbay Muuma ñuy ñaan ca jàmbaari sëriñ Touba Seexul Xaddiim nga ka demoon gànnaar fekki Seexul Xaddiim ka sëriñ Touba yabaloon ci sëriñ Ibrahima Binta Silla ngir mu nekk fa yal nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem liir jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay alxuraanul karim amin ay alxuraanul karim amin ay alxuraanul karim amin ay alxuraanul karim amin